Zal amul c'est-à-dire ma ni man Pape Sidi maay woo ndaw si ma ne ko Zal nee na su fekkee li ngay wax dëgg la am nga fit kaay ma jox la alima alima ngi noon de alaaji kii ba la sawaay kii yow bu fekkee sa fit bi ngay wax dëgg la ci yow sob la alima ngi noonu de waxal rek. te ko mani man a Bawol Bawol seen xarit seen doomu nday damaa ñëw di leen ragal leen ñaari fan yi bu ngeen gisul rek. ku yebu jangal ma faati ak salatu ala nabi pap Sidi Fall buy pexem joye sal kan len koy denc ngeen di deg pap Sidi Fall moy saab non xam nga nit dana la jege da ko la sori le nit dana la bëgg-bëgg lu ndeke ko la bañ la pap Sidi xoolal alima mi ma bëgg may ki bu duggee buuñaab témèr bi bo waree sama kaw balaa buuñaab bee jeex ma faatu kii man dama yaakaar ni ñaari jëmmam yi lan bolé muy ben nekk kenn ki la alima la laaj ni tan la yow bo doon mbër fu ni nat sag ndomba la xamut ki bu doon fay natum ndombam xana nga dem ba ci taatu guuy go xamni ay raba fa dekk nga nat fa ndom kii ndiggam lii mun taamu ndom ba ko baax ah? ah waaye cat lii cat la billahi wallahi cat la de wala nga wut paanu bi yàmbaa boo demee sarax ko police bu monté ci rond point wala nga dem ci poste contrôle sarax ko police yi li cat la cat la de pap di kuma bañ nga dama la bet ci da ngay wayal nga ni ma woon la ray man la na yak sa ber nga ni ma la ray xamona ni li nga may wajal